ci jamono bu yàgg ginnaaw bi nga xamee ne sedd naa Moussa alayhi salaam wuy ji na boroomam banoo Israël dal di sori li nga xam ne mooy dëgg yàlla nag daldi wàcc ci seen biir buur bu kàccoore buur bu doywaar koo xam ne tooñkat la muy buxtu nasar buxtu nasar dal di nay alag lu bari ci yéexoot yi rey lu bari ci ñoom jaay leen doole téere bi nga xam ne nag mooy tawraat mu fexe ba dajale ko xotti téere bi lakk ko ñi nga xam ne ñoo ko mokkal ci ñoom ñu bari ci ñoom mu rey leen nekkoon buur boo xam ne dara ci lu baax ñoru ko fu dëgg am rek mu fexe ba suul ko moom buxtu nasar loolu nag taxoon na téere bi di tawraat daal di nësax gisatuñu kenn ko mokkal ndax ñu bari ci ñoom rey na leen téere bi itam lakk na ko loolu nag tiitaloon na waa dëkk bi nga xam ne ñooy banoo Israël ndax sama papa moo ngi fi. waaw moom moo ngi ci biir yow sama doom moom moo ngi julli di ñaan yàlla di jàng tawraat bi nga xam ne mokkal na ko ci biir dënnam ñëwal yow sama doom naka nga def sant naa yàlla maa ngi ci jàmm waaw kon lu tax sa kanam gi triste lu bari ci ñun waa banoo Israël xamatuñu téere bi di tawraat ñun ñëpp dañ koo umpale xamatuñ ci dara dara. waaye sama doom ñàkkul ñenn ñenn ñoo xam ne mokkal nañ téere bi. amatuñu benn téere bu mat sëkk bu wér ci tawraat ginnaaw boo xamee ne buxtu nasar xotti na ko ba noppi borom xam-xam yi ko mokkaloon lu bari ci ñoom mu rey leen. bul jaaxle yow sama doom man am naa téere tawraat bu mat sëkk bu wér dara manqué wul ci téere boobu. kon am nga ko waaw yow sama doom. téere boobu sama papa moo ko dencoon ci bërëb boo xam ne kenn xam ko ku dul man te téere boobu dinaa la woon fi moo ko denc jamono boo xamee ne màgg nga bu ko defee ñu mën koo jàngal waa dëkk bi. yow sama papa bëgg naa nga jàngal ma ko ba ma mokkal ko comme yow ni nga ko mokkalee ndax yow rek yaa fi des ci ñu ko mokkal ci kaw suuf. waaw yow sama doom dinaa la ko jàngal ba nga mokkal ko ci coobare yàlla ndax kat loolu àq la sama diggante ak yow nga jàngal ko waa dëkk bi yépp ñu xam ko comme ni nga xamee ne noonu la ma sama papa jàngalee. man bokk ma ci ñi nga xam ne dañuy nëbb xam-xam xam-xam bi dama koy tasaare jàngal ko képp koo xam ne war na ko xam jamono bii ak boobu nasar rekk moo ma jaaxal waaye incha allah danaa la ko jàngal ba man tasaaroo ci yow sama doom. yow sama soxna si waa waajalal ma sama mbaam mi damaa nekk ci yoon damay génn. waaw yow sama sang bi Ousseyri maa ngi lay indil sa bi léegi. nanga gaaw nag ci wàccaay bi ndax mu bañ a tardé ci bis bi ndax bisu tey bi bëgg naa dem xool commerce bi ak njaay mi naka la demee. yàlla la yàlla sàmm yow sama papa dama sàmm téere bi nga xam ne moo nekk sa biir dënn bi. ne la yàlla fay aw yiw yoo sama doom. bismillah maa ngi wakkilu ci yàlla di ñaan mu doole maa dimbalee doole maa xettali. te sàmm téere bi nga xam ne mooy tawraat bi nekk sama biir dënn bi ma mokkal ko ba duma ci benn baat ngir ma mën na bokk ci ñi nga xam ne ñoo koy tasaare ba téere bi du sànku maa ngi ñaan yàlla dolli maa sàmm cey sunu boroom sunu dëkk bi de lépp ràpp lépp a yàqu kër gu baax sax amatu fi sunu dëkk bi dafa gént gént gu jéggi dayoo amul benn kër goo xam ne mucc na miir yëpp a xomaat miir yépp a màgget amul benn kër goo xam ne mën nga ne kër gi sax tere na cey sunu boroom subhaanallah yàlla sunu boroom day mën naa dundalaat dëkk bi ginnaaw bu mu deewee waaye naka la loolu mën a nekkee ak tabax yu xumaat yi nga xam ne dafa ràpp boo ko laalee rek mu ruus topp la maa ngi wéeru ci yàlla dal di wéyal sama yoon ndax xam naa ne ay mbir yu bari ñoo ngi may xaar ah bisu tey bii dafa bëri coono tey dafa tàng xaaral ma dugg ci xunt bi dal di fi noppalu ab diir wala sax ma fanaan fi su ma xëyee continuer sama yoon comme guddi gi dab na ma. naa defar raisin bi ba mu mën a nekk am njar ma jël mburu mi dugal ko ci mu nekk ponché ma bàyyi ko ab diir ngir ma mën koo reeree. tey moom dama sonn lool xam naa dama gémmantu war a nelaw ndax bisu tey bi moo bari coono yàlla sunu boroom bëgg na wane waaraate bu kemtaane ci waa ji di Ousseyri moom Ousseynou bii sunu borom def na ko waala te ñeel nit ñi yàlla sunu borom jàngale naka lay dundale suuf wala jëmm ginnaaw bu mu deeyee lu yàgg sunu borom noonu mu daldi di rey ji nga xam ne muy Ousseynou mu daldi dee diiru téeméeri at Ousseynou daldi dee téeméeri at. yàgg boobu mbir yu bëree bëree bëri daldi dinay soppeeku yàlla sexal gàncax yi ñu meññi boo dundalaat dëkk bi ginnaaw bu mu deewee garab yi daldi sax doomi dëkk bi daal di màgg tabaxaat kër yi yàlla dundalaat dëkk bi ginnaaw bu mu deewee mu nekk dëkk bu naat lépp soppeeku noonu yàlla dundalaatee dëkk bi noonu la dekkilaatee ki nga xam ne mooy Ozeyri ginnaaw bu mu deewee téeméeri at muy waa ji nga xam ne dafa mokkal tawraat ci dënnam bi daa mel ni nelaw naa fi nelaw yu xóot de yow Ouzeyri hmm? kan moo wax ak man ah ah ah fi kenn de ñaata diir nga fi nelaw yaakaar naa nelaw naa fi bis wala xaaju bis nelaw nga fi diiru téeméeri at. Hmm? téeméeri at. xoolal sa lekk gi ak sa naan gi dafa mel ni dara soppeeku ci de. ah. Hmm? waaw waaw li nga wax de dëgg la lekk gi de dara soppeeku ji naan gi itam dara soppeeku ci. tey sunu boroom téeméeri at loolu naka la mën a nekkee. xoolal sa mbaam mi. yàlla daf laa nam ma def nga nekk waaraate ci nit ñi lii lan la sama mbaam mi day mujj naa soppaleku nekk ay yax xoolal bu baax naka la yàlla di defaraate sa mbaam mi ba mu am ndawal am der nekkaat mel na meloon bu njëkk lu dëggu ne moom yàlla sunu boroom mën na lépp noonu la waa ji di Useyri waraatee ci mbaamam ngir delluwaat ci këram waaye romb na dëkk bi nekk ko waaru nekk ko yéemu ne yow sunu boroom yéemu naa ci say mbir xoolal garab yi nu mu deewee woon ak ni mu meññee xoolal kër yi ni ñu soppee xoolal marché bi xoolal commerce bi ni mu doxee xoolal yére yi xoolal coppeeku gi nga xam ne am na ci xar kanamu dëkk bi daal ne maa ngi waat ne moom yàlla sunu borom mooy ki man lépp daal di ne léegi maa ngi delluwaat ci sama koñ bi nga xam ne falaa laa dëkkoon ngir mën a dem sama kër ñibbi. bi mu duggee ci koñam nag waaru na lool ndax gis na koñ bi mu dëkkoon dafa soppeeku ba këram sax xàmmiwu ko nit ñi tamit biñ ko gisee waaru nañ ndax melokaanam. ak solinam moom itam bi mu gisee nit ñi waaru na ndax solin bi ak melokaanu nit ñi ndax coppeeku am na ci jamono bi mu ne yaakaar naa ne kër gee may seen mooy sama kër du ma ko jaawale mukk bi mu ñëwee mu fekk soxna su màgget ci buntu kër gi mu ne ko ndax fii mooy kër Ousseyri soxna si ne ko Ousseyri lan ngay wax ni yow sama doom mu ne ko waaw lan moo tax nga yéemu bi nga déggee tur woowu mu ne ko tur woowu de dama ko gëj a dégg diirub téeméeri at soxna si ne ko waaw kër gi de mooy kër sama sang boobu di Ousseyri mi nga xam ne faatu na diirub téeméeri at mu ne ko déedéet man mii may Ousseyri mu ne ko Ousseyri yow sama doom bul nax sa bopp te bul foowee sa bopp te it bu ma foowee Ousseyri dee na diiru téeméeri at kon yow mënoo nekk Ousseyri mu ne ko waaye dama jaaxal mooy sa kàddu gi dafa niroo kàddoom lool loolu daal mooy li ma ci jaaxal bi mu waxee loolu mu tontu ko ne ko maa ngi lay waatal ci yàlla ne la man maay Ousseyri soxna si ne ko bu fekkee yow yaay Ousseyri ñaanal yàlla mu delloo ma sama gis ginnaaw bu ma màggatee bu mëntumaa gis ndax Ousseyri kat kuñ daan nangu ak ñaanam la Ousseyri daal di ñaan suñu borom ne ko yow suñu borom yow mi nga xam ne man nga lépp yaa ma dundal ginnaaw bu ma deewee téeméeri at man lay ñaan nga delloo soxna si ab gisam bi Ousseyri tàllal la loxoom suñu borom daal di ñaan soxna si commencé di gis ba mën a gis boppam ba mën a gis loxoom daldi ne waaw gis naa waaw waaw gis naa kay daldi sant yàlla ne yow sunu borom maa ngi lay sant nga delloowaat ma sama gis ne ahan kay yow mi yaay Ousseyri mu ne ko li ma ci jaaxal kay mooy lu tax dara soppeekul ci yow diirub téeméeri at du sa yére yi tey du sa mbaam mi na nga fi jóge woon rek noonu nga ñëwaatee daanaka mu ne ko lépp sunu boroom la moom moo am kàttanu def lii yépp mu ne ko dañu dem ma béggal sa doom ji ci dellu si gi nga dellu ndax bu ko yëgee dina kontaan lool ndax jàmbat na la ba sonn jamono yooyu fekk na doomam bi nekk mag nekk kilifa yoru njaboot bi màgget mi ñëwee di yaayam nuyu ko ne ko sa papa de ñëwaat na ne ko yow sama yaay xaa dangaa màgget xanaa naat gi dalaa jàpp loolu nan la mën a nekkee noonu papa ji daal di ñëw mu ne ko kii mooy Ousseynou mooy sa papa mooy ki nga xam ne faatoo woon na diiru téeméeri at man mii bi ma ko gisee damaa jaaxle muy mbir moo xam ne mbir mu yéeme la mu ne ko dëgg la man mii may sa papa soxna si sama soxna la yàlla moo ma faatoon diiru téeméeri at ma dekkiwaat mu ne loolu nan la mën a nekkee mu ne ko loolu moom mënuma koo gëm papa ji ne ko ndax am na lenn loo xàmmee ci man mu ne ko ahankay am na lu ma xàmmee woon ci sama papa ab màndarga la bu nekkoon ci ginnaawam su fekkee moo ngi ci yow ma xam ne yaay sa papa bi mu yëkkatee mu gis màndarga bi ne ahankay lii kay mooy màndargam kon yow yaay sa papa mu ne waaw lii ana naka la mën a nekkee doom bi dem daal di yéemu lool mu ne waaye lii de yéeme na man dey jaaxle naa lool waaye balaa ma ko mën a gëm-gëm gu wér mooy tawraat bi nga xam ne sama papa diggoon na ma ko tam moom rek moo ko mokkal mokkal gu wér mu andiwaat ko mu ne ko ahankay waxtu yi may waxtu yu ñu war a génnewaat waat tawraat bi ginnaaw téeméeri at ndax jàpp naa ne lii rek la ci yàlla na moon kon nañu dem ma wan leen fi ko sama papa dencoon ngir ma mën koo génne jàngal ko nit ñi noonu ñoom ñëpp ñu daal di àndandoor dem ba ci fi nga xam ne xoolal ko papaam gasoon def ko ci kees denc ko bi ñu àggee mu ne ko barab bii la ko sama papa dencoon mu ne ko ay ca gas leen moom Ousseyri moo ngi jël picc bi di gas ndax waxambaane la xool leen mbir mu yéeme. moom Ousseynou waxambaane la waaye doomam mi màgget nañ ba ci ay sëtam sax daanaka boo xoolee jëm nañ mag waaye moom waxambaane la mu ne ko nañu dem jàppale ko moom doom ji màgget na papa ji nekk waxambaane lii di kemtaanu sunu borom noonu nag doom ji kontaan loolu di safoo ak papaam papa ji ne ko lii yëpp kemtaanu sunu borom la day firndeel ne yàlla ku màgg la te jamono bu nekk day gën a màgg. bi ñu ko sullee gis téere bi daal di ruus maxe ndax yàgg gum fi yàgg mu ne ko waaye lii yàqu na na léegi lan mu ciy pexe mu ne ko xanaa nga jàngal ñu ko ci sa dënn bi nga xam ne mokkal nga ko noonu sang bu baax bi di Useyri commencé jàngal waa dëkk bi li nga xam ne mooy tawraat ci mokkal bu rafet bi nga xam ne mokkal na ko ci biir dënnam lii moo nekkoon histoire Useyri bismillahi rahmani rahim أو كالذي مر على قرية وهي قاوية على حروسها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعد يوم قال بل لبثت مئة عام فانظر إلى طعامك وسرابك لم يتصنع وانظر إلى عمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى عذام كيف ننزرها ثم نكسوها لعما فلما تبين له قال قال أحلم أن الله على كل شيء قدير sadaqallahul azim